إنما الأعمال بالنية ونية التبرك بالشدات الحمد لله قديم الباقي في الأرلين سبق واتباقي الحمد لله قديم الباقي في الأرلين سبق واتباقي هو وأي لا يموت أبدا وهو الرحيم ليبدي قدا فأفضل الصلاة والسلام على النبي مصطفى الأمام فأفضل الصلاة والسلام على النبي مصطفى الإمام وبعد موسى njàmme dellu marsiyaal Cheikh Moustapha Mbacke yooy lay bu rijaal Obaadu Muusa njàmme dellu marsiyaal Cheikh Moustapha Mbacke seydi rijaal yéeni murit njàmme ngi deeti yuuxu di jooy xaliba bay donay sadiixu moo di xalibatu xalibatu rasool si Ahmadu Mbàkke saahibul usul budul ko nag Muhammadul Makki ma jëkka dem woo Ahmadul Mbàkke budul ko nag Muhammadul Makki ma jëkka dem woo Ahmadul Mbàkke aqula baayi toppoon Mustafa kon tey nu jooy jooyaale amdil Mustafa waaye la yóbbu Mustafa Makiya Dubai Tuuba Mustafa Mbakeyu waaye Mustafa Makiyu Dubai Tuuba nag Mustafa Mbakeyu wa kullu ma qadarahu ilayhi li mu'mini aflalu min siwaahu duniyaa su doon karug saxoo yaale xëyr waraawa makka duñ jaale su yàlla doon tàggoo nag ci ruy Mustafa du ruy million ci xulaba dogal bu ànd ak coobareem lay faate loo xeji xeji deen kaay nu waate mu wakkulu nafsin makkata ci mbakke saayiqatil mawte بغير شك وكل نفس مكة مكة سيقد الموت بغير شك وقلبك أو جعل الينم مصطفى قطب السمان سيف دمنا بنو فيه وقلب قلب قلبك جعل الينم مصطفى قطب السمان سيف دمنا بنو فيه teewoo nag mu àggale jumaa yi Tuuba te nun faatu ndax nu jot ko booba te woon maa gare jumaay Tuuba te nun faatu ndax nu jot ko booba jumaa ji jooy nañ ko ba ser ba su sañoon du fekk baayam ba ginnaay jooy na ko rijaalul xaybe jengoo di jooy di jooy ba suubi qalbi suufa ngi jooy garab yee jooy nañ am di ngir asamaan yi yuuxu nañ ca samedi jant ba niis naa weeru feeñ ci takkusaan yow ma di jooy xubbu samaan jigéen ña dengoo góor ñi buur di daanu ñeya di say ba dem ca daanu ñii tabbi àll ba far dem ba faatu ñii mawatuñu lekkatuñu lil aatu neexoon keroog na faatu ànd ak Mustapha bu xaru jaa doon murja deeba appi ale yépp taw bu taaru dem naa waaj ñi bele siftu balle wey naa appi ale yépp tey ma jooy seexam de jooy musta jooy xubaylu am di appi ale yépp seey bi nax na Tuubaa ñibbi naa jana ca baayam booba afti ale aduna kama jooy ñëw de an diango abadan tanaawoy afti ale fulku masoon jooy na kaamil ya bañ nañ leen miraas di siiw na afti ale kër gu màgg jooy na ngir aduna kay xajooli booy na appi alay góor gu way ga dem na way mel na man di jooy am na appi alay góor gu way ga dem na way mel na man di jooy am na appi alay taburi ba dem na kenn dootu fay bori ci réew mi na appi alay kuy saraxa miskin yi te toppatoo bàyyi ak jirim yee ab ki ali kuy dundal laay fee du wa doy rafle yi ak xaadam yi ab ki ali kuy defar waa Tuuba te toppatoo Njurbel di def ma booba ab ki ali waaju xer dem na daana maaya wata ke was ndar xam na ab ali express wa dem na bagage tàdd nañu paasaroot na ab ki ali sin ñeloor gi dem na rabi ay xiiraato wi ayam na jàmbaar gi dem na waaju xam nga yàlla te jom te bari ngor xam illa jàmbaar gi dem na waaju xam nga yàlla tabari jom tabari ngor kamilla cakba dangaren tirey soɓam digel baratna perindawe sawno fi yawma jumlati lirer fa tuba dini tufan se kamde wi tembel ba demna fi yawal jumati lirer fa tuba dini tufan se kamde mooy tembel ba te mbel bari yi di ko jeex moo cele soon ko reer yaa leeñu seex ayin fa ayin ayin ayin wuy man man ayin jooy ma ayin ayin fa ayin ayin ayin wuy man wuy man jooy ma ayin ayin alaa faqdi qalibam de Cheikh Moustapha Mbakiyu maa tarde ayin ala faqdi imaamu Tuuba carri la buurna ci bis booba ayin ala faqdi siraaji la lampi bi siraaji laay lamp ba leer ba fay na laay ay na laa samsil waraasil jaay jant ba leeraroon samaan la ay na laa lamp bu lee ba dem na ay ala baabil xulaali la fi mulki wa malakooti lay ay na laa xarmi rijaali laaye moo sembiraayu xulafaaw lay ay na laa xutbul waraasil jaay خليفة القديم دون الله هو أبيب وأبيب لا أحب أهلي لا إن الله لما جتهنا برمجم جناني شربر يانغي باكو بسماني كمانا يسال ديني دون واجه ترقيا مبولوما تبخ جماجي déglu wax la yow atum ci ba saa aay na po ama wasasin taarix ba déglu wax la yow atum ci bi saa aay na po ama wasasin taarix ba daaru salaami yow maa soraar moo di ganu ju ga la miraar fi la ganee tudd ci daaru salaam ci weeru ko weeru tamxarit muy màggal gi ñu koy màggal sëñ seen màggal sëñ Musaa fii déglum wax la yow atum juddoom bi saay nopp ama wasa seen taarix ba daaru salaam yow ma moo di nganub juddoom ga la miraara fekkale baayam genn listixaare ngir bëgg a ñëw tuuba maa labrar bisum gane àdduna gis na booba deerug rasulullaay sarba tuuba maam Ceerno yoon na kon doy yoor yoor moo ko yegal Seex Bamba kooka mooy góor Bamba na Ceerno naka wax borom saam maa ngi ci xale maay defar fileeg saam Sëriñ Mamar Jaara ka tudde xatma ba tudde ko boppam Bamba ñëw ne Mustafa ca Muhammad la Bamba sanc Tuuba ci weer di jiwa ñu naa ka mbër nga ca la bamba sanc tuuba ci wee digg we ñu naa la bamba sanc tuuba ci weeru digg we baama ñu andil mustafa yaaram mooy doomi yaaram ajaban taaram ba mooy noolu xiyaari taambake càmmal ñi bete bete yaa ko kii sherif yoo makkaat waa madina amuñu woon ku mel moom ci diine ahmadu amina taayaru badri taaru ko taafeer ay na ahlu badri borom si diidi rëy la kokki ak ndaam nañu jaloore doora ka doora xam ndaam borom si diidi rëy la kokki ak amoon nañu jaloore doola xam ndaam ab seela moom jëfuñu duñ ko suuru ab géej ak dorobe dañ koy liiru setu maxtaar nu mbee mi sañcoon kokke ak seti gay reel yafa ndaam di fonki moom njambatam jag na bu yàgg-yàgg moom xiifuloon ba tey mu door regg seera samooy la bambax ci yaayam mooy sawjatul saaliyatin fa baayam moo jokka mooñ calala yak taalaale fa neegi tuuba mustasal galaali maam yi duloo moo jëkka jox sëriñ Tuubaa cere jandi diw ci àdduna waaw euh, foofu sëñ maama euh, dafa am loo xam ni dana koo dégg doon ci wut ak leeru ndax dañoo dégg ñu ni hmm. jamono yi nga xam ne suñu nopp mi ngi gane si àdduna hmm. dafa fekk ku baax kii di dugg xalwa mm-hmm. muy dugg xalwa nag ni leen maam Cerno kon too leen mbiram mm-hmm. ba nga xamante ni sëñ maam Mor Jaar tudde na ko boppam mm-hmm. dégg naa sëñ mag bu ñëw ni ko déedéet Moussa lañ koy tudde loolu daal dañ koo dégg te xamuñu ba xam moom itam moo tax Baye Moussa Ka di wax li yam déet waaw moo tax wax ko eh, sëñ Malika ci njariñ dafa wax ne ma ci lamiñam ne sëriñ Tuubaa leen ba mu ñëwee ci àdduna ne yonent yi moo fa jëkk jiitu moo ko jëkk na ma soxna amee si kat gon gan goo xam ne gi na nga ma ko séddee tuddee ma ko moo tax juddu waaw ne sëriñ Fallu mu ñu jamono ne sa borom a juddu ci ne ma naaw bu sa am na gone na nga ma ko séddee tuddee ma ko waaw nii nii la nii la demee loolu moo jëkka la yak taalaale fa neegi tuuba mu sosol gëlëli mooja ko abroom nga def ko addiya jebal ko bamba ndey je muy waliyu mooja ko abroom kii def ko addiya jebal ko bamba ndey je muy waliyu kuyadi laay ke mbakke maane mba abdulaay jaw soxna saa kay waane kuyadi laay cheikh mbakke maane mbaab di laa jaw soxna saa kay waane mbiram sañi fu ko bidel ci njéeméer nde naa leen ji mosalu leen leer wax ji tëngoom seere la ngir xaliba de ko siyaare jur ko nawleem déeba loola taxoon ba bamba na omar gi ñëwal fi man ma faj saajo tey tey mu ne ko Moustapha na def xalifa mooy sama joo su amee ma deeba Cheikh Bamba naa ko ak kasa yakkoonu kun ba yakkoonu moo ko may sukkoonu Cheikh Bamba naa ko ak kasa yakkoonu kun ba yakkoonu moo ko may sukkoonu su Moustapha doon pëlitam di ardo ngir yaari wàllam yëpp am nañ fardo su Mustafa doon pëlitam di ardo ngir yaari wàllam yëpp am nañ fardu su Mustafa law be dégg maalaw bu doon ci buur di fëre dégg awlaw su Mustafa weexoon ñu naa gouverneur su doon abariya dégg antel parenor su Moustapha doon jaan ñu naa ko saamaan su doon ci weeru koor di doon ci weeru ci weeru koor mbaa baan su Moustapha doon jaan ñu naa ko saamaan su doon ci weeru koor di weeru mbaa baan su Moustapha doon rabu àll diw ñey mbaa ngaaka mbaa njabale ñépp naa cey su Mustafa doon jàkka fab di Makka mbaami Madina doomi ngeen ji rakka su Mustafa doon xeeti mursaliina man aqiyaadi xeyri alamiina su Mustafa doon puuri mbaawaliyu man Ahmadul Mbakiyu su Mustafa doon géej man aqiyaadi bahrul muhiti ngi wër bi su Mustafa doon ngeeñ mën a koyaadi baarul muyiiti yaa ngi war bileedi seeral sa mooy na mu defanteg baayam cawam sa sin nga xam ne moo doon waayam bisub talaata la ka yónnee leetar mu jug tabaski di ko laaj ay meetar naka nga jox ma la ca saaru soo ko xamul jàngal ma albusari sëriñ bi yax Maamur Saar fa kànga mooy sunu seere bul ko sikki sàkka sunu jotaay boon ci wàllu takkusaan moo doon sunu tàggoo dañuy daje ginaan keroog la jaay dagga jewoon fa diisoo mu jinni ak lef Mustapha du diisoo ka Bamba boole koog jawaabam bisib keroog la